بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد سيد الأولين وإمام الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين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 يا أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullitu tedd yi ñu ngi am mbégte fa tabarakallahu di dellu siwaat ak yéen ci seen émission bi nuy waxtaane xutbay seydina imaami laa il mahdi alayhi salaatu wassalaam تبارك الله بلا نيو جوبلو تي وقتان وي نك نانو كو دان دافي تي ايميسيون بو نك نيو يكي نيو يو تيد اك زيار يو تيد ديكا جمالي تي سونو كليفه سونو خليفه سيدنا عبد الله ابن سيدنا عيسى رؤ الله ibnu seydina imaamilaa il mahdi alayhima salaatu wassalaam ñuy wax ne baay abdullahi yal na ko yàlla dolli wér baay abdullahi yal na ko yàlla dolli nooteel baay abdullahi yal na yàlla dolli guddal fanam baay abdullahi yal na ko yàlla dolli jàmm ak sutura fa tabaarakallaahu noonu ñu ko ñaanale ñaan yooyu ñu ko ñaanal moom sang bu tedd boobu ci la nuy tibb di ci ñaanal képp kuy kilifa diine képp kuy xalifa képp ku nekk ci mbooloom diine waaye noonu lañ ci ñaanale it rakkam yu tedd yi fa tabaarakallaahu ak njabootam gu tedd gi yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla daaral leen yal na yàlla dolli leen jubale fa tabaarakallaahu ñu yëkki nuyoo islaam bu tedd di ko jëmale ci mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi ànd ak ñun fii ci daara ji ci fa tabarakallahu waxtaan wi nga xam ni moom la ñu fas yéene tàmbaleeg yéen ci xutbay seydina limaamullah il mahdi alayhi salaatu wassalaam ki leen di defal émission bi nag àllarba bu jot ci waxtu wi di seen mbokk di seen xarit Ababacar lay Bass ñu gën koo siiwe ci mbay Bass fa tabarakallahu tey ñu am gan gu tedd di al oustaz Ahmed Laye moom nag nekkatul ku ñuy présenté fii ci rajo bi ndax sama wéttal la ci émission bi tabaarakallaahu jotam barewul waaye léeg-léeg rek ñu këf ko mu ngir mu ñëw wéttali ñu ndax it xam-xamam bu leer bu teey bu sell macha allah eh, tey nag oustaz seenu diggoon nañu ne dina bokk ci palateau bi dina bokk ci waxtaan wi waaye amaana mi ngi ci yoon wi. ndax oustaz mel na ni auditeurs yi na mën ko lool ay xat-xat nag ñoo ko téye woon boobu ba tey waaye ñu ngi ñaan yàlla na saa borom ba woyo fa lépp ba fa tabaarakallaahu mu mën a ñëw taxaweewaat émission bi ni ki mu ko daan taxawee ni mu daan bëggalee jullit ñi fa tabaarakallaahu yal na yàlla defal ko ak jàppandal ci wàllu technique bi ñu ànd ceeg sunu mbokk sunu xarit sëñ di laay fa tabaarakallaahu ñu koy ñaanal yàlla defal ko ak jàppandal defal ko sutura defal ko ak xéewal war may libaas ak boroomam kon tey ñu tànnal leen benn tomb bu am solo ci jukkee ko ci xuta bi seydina imaamilaa il mahdi yi alayhi salaatu wassalaam muy a zikr zikr eh, boo ko déggee mën nañ ko tuddee fàttaliku yàlla mbaa boog tudd yàlla gis nañ ni sang bu tedd bi Seydina Imaamilaahi al-Mahdi wassalaam bari na lu mu ci wax ci xutba bi waaye gis nañu it ci ay njàngaleem ci ay jëfinam daanaka danga ciy gis lu bari tudd yàlla mooy fàttaliku yàlla e, tudd yàlla nag Seydina Limaam moom ñu koy digal dina ko fàttali fazkurullaha zikran kasiran tudd leen yàlla lu bari fazkurullaha qiyaaman tudd leen yàlla bu ngeen taxawee quudan bu ngeen toogee wa ala junubikum ak ci seen tëraay kon fa tabarakallahu ñu gis ne lu mu insisté la te it boo xoolee ay njàngaleem da nga cey gis fépp turu yàlla da nga fay gis fépp fàttaliku yàlla mu wax ay ngëneel yu bari yu ci am dinañ ci ñëw ci biir waxtaan wi waxoon ko démb fàttaliku ko tey kooku oustaz Ahmed dina ci ñëw waaye it mu mel ni zikr dafa am ay anwaa anwaau zikr bi maanaa sortu zikr yi nga xam ni moom moo am xeetu zikkar yi nga xam ni fa tabarakallahu moo am boo xoolee am na zikr bu tudd turu yàlla la maanaam di zikr ci asmaullahi al husna turu yàlla yu sell yu tedd yi Seydina Limaamu nag tànnal ñu ci baatub laa ilaha illallah jox ñu nga gis na bu nuy julli laa ilaha illallah boobu lu nuy ubbee bu ñu jullee ba pare dinañu tëje baatu laa ilaha illallah boobu ci nan balaa ñoo julli dinañu tudd yàlla ba sunu dënn tàng laa ilaha laa ilaha seyduna rasulullah lay lay la la lay lay la la lay lay la la seyduna rasulullah lay lay la nga gis ne nit ki bu gënee àdduna it bu nu koy tuddit baat boobu la ñu lu jiitu loolu it mag ñi bu ñu daan jëli seet danga daan gis ñu tudd baatu yàlla bi tur yàlla bu tëdd bi laa ilaa laa laa ilaa ilaa laa laa ilaa ilaa laa laa ilaa ilaa laa laa ilaa ilaa laa laa ilaa Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah xam nga boo seetloo mag ñi nañu daan nañu daan dëbbee sikkar xaw na wuuteeg léegi jamono ji ni nu koy dëbbee fa tabarakallah da ngay dégg léegi bu ñuy zikr naan maam lay laay laa laa laay laay laa laa laay laay laa laa laay laay laa la te boo xoolee zikkar bi turu yàlla wi maam ji bokk ci mag ñi daan nañ ko tudd duñu ci dolli ñu ci wàññi mbaa boo ñuy tudd turu yàlla wi di ci boole a la ilaha illa la la ilaha illa la agi xarful istifham la ci arab ñoom oustaz Ahmed ah, nee nañu kooku interrogatif la istifham da ngay laaj te foog naa ni booy seede turu yàlla da nga war a affirmer daf la war a wér te nag. mag ñi ñu ci sonnoon lañu wax nañ ñi Seydina Isaa Ruuhullah alayhi salaatu wassalaam daan tëdd ba guddi jékki-jékki ñëw cib géewub sikkar di joyanti turu yàlla wa ndeysaan bàyyi libaas sàll sunu bàyyi sunu sëriñ bu baax bi yàlla na yàlla dolli ko wér ak xéewal ak sutura nee nañu bés dañoo jóge ndakaaru di ziyaar si Seydina Isaa Ruuhullahi fii ci Cambérène alayhi salaatu wassalaam nee booba xale bu góor la moo doon dëbbi si kër si nee na waaye mu nga jiitu naan amamadou rasulullaay laay laay laa la amamadou rasulullaay laay laay seenaa isaaru ullaahi ak taar bu rëy ba ak ndaak lu jekk la nee génn taxaw ci buntu perong bi nee na ba mbooloo mi ñëw di sikar si naay sa tàllal loxoom nee na ñu arrêté sikar si mu ne leen waaw yéen lu ngeen mel ne ñuy dàq picc naan Muhammadu Rasulullah nee na Seydina Isa yëkkatil boppam yenti waatal boppam sikar si Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah la ilaha illallah wallahi ndeysaan sunu baay Ibrahima jóob doomu grand euh, euh, grand sëriñ di doomu grand sëriñ ndax moom nekkoon na grand sëriñ ci jamono waaye nokkew nit doomu grand sëriñ Momar Marème Diop nee na mi ngi fàttaliku ñoom ba nu gënee doon tànk bés ñuy zikkar ci ëtt ba nee na maamam ji nga xam ni fa tabaarakallaahu ku jamononte woon nag Seydina Limaamu la nee na ñëw joyanti sikar wi delluwaat toog nee na ñu continué waat sikar nee na góor gi ñëw joyanti waat sikar wi ñaareelu yoon nee na ñetteelu yoon ba nag ba mu ñëwee dafa tas sikar sa ne dem leen tëdd bu fekkee ni turu yàlla wi mënoo leen ko wax ci waxinu sell kon nga gis ne fa tabaarakallaahu ndegem jamono jooja la turu yàlla wi xawoon na fa tabaarakallaahu turin tudin wi xawon fa tabarakallah doy war kon waxuma lak jamono ji mu melne ah sunu mbokk kat yu teddi ñu ngi ñuy deglu ndax zikrullahi dafa di lu am solo bari ngeenel bari yol ci kaw bu fekente ni tuddu nga yalla ni nga ko wara tudde kon ben la ci zikr muy tudd turu yàlla waaye beneen xeetu zikr bi bokk na ci di xalam ci kéemaani yàlla yi sina limaam moo ñu koy wax wa tafakkaru fi ayaatillahi ka xalqi samawaati wal ard na ngeen di xalam ci kéemaani yàlla yi ni ki mu bindee asamaan ak suuf xalam ci mbindeefam yi fa tabarakallahu xalam ci doj yi xalam ci jéeri ji xalam ci géej gi lu ci nekk rek nga gis kainaat yooyu naka la ko sunu borom bindee ak ki amal lii mooy kan ñu tudde ko méditation méditation lu am solo la lu mën a yóbbu nit la ci sunu borom waaye bokk na ci xeeti zikr xiraatul quraan kasratu tilaawatil quraan seydina limaamul mahdi alayhi salaatu wassalaam mu ngi ñu koy diggal ci xutbaam mu ne nangeen koy jàng di ko nafar te di ko duruus bi maanaa nanga koy jël di ko jàng waaye nanga xam la ngay jàng lan la waaye it na nga cay xalaat fa tabarakallahu kon qiraatul quraan min anwaa'i zikr di jàng alquraan ab laayeen dafay góorgóorlu ci téere yàlla bi ab laayeen dafay bëgg alquraan di ko jàng di nafar mag ñi foo leen mosaana fekk ñi ngi yore seeni jukki di wàcce ay kaamil ñi ko mën weer wu jot ñu wàcce kaamil ñi ko mën ñaari ay bés bu ne ñi ko mën ay bés bu ne waaye gis nañ ni magu baay laay yu tedd yi ñu bëggoon jàng alxuraan la boo xoolee téere yi bind ci dund seydinaa Isaa ruullah alayhi salaatu wax nañu ne ba mu nekkee ngaa xam ginnaaw muy ñëw di wutu baayam di doon xalifaam ñaar la ñu ràññee woon ci moom bari jàng alxuraan boroom alxuraan ju neex ja te ka daan wax ca kaw di nafar alxuraan ji ca kaw ci baat bu neex ba mag ñi seedeeloon nañu ko ak bari zikr kalimatu laa ilaha illallah daan tudd yàlla ba bu xam di ko tufli muy daret te xoolal boobu 33 ans matul bokk na it ci anwaau zikr salatu ala nabi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nañu ne seydina limaamu laa il mahdi alayhi salaatu wa salaam digal nañu ko wax na ko ci xutbaam ne maa ngi leen di digal ci baril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ne moom indil nañu ko ci baada salaa ginnaaw bépp julli bu jullee ba pare Seydina Limaamul Mahdi indil na la laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kooku yaa ngi tudd yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax ko ñett yoon allah هما صل على سيدنا muhammadin wa nga def sa ñaan ñaanit min anwaa zikr bokku na ci xéeti tuddu yalla waye bo defé sa ñaan ba paré jang ñetti fatiha ñetti ikhlas ñetti salatul fatiha al fatiha yiddi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam waaye al-imam yamul fofu mu jox le wird woo xamni fa tabaarakallaahu zikr gënu ko matale ndax di nga jàng fatihatul kitab temer julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam def istixfaar muy jéggalu sa borom téeméer astaxfirullah al azim allazi laa ilaha illa huwa wala xayul qayum def ko téeméer julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam jàng salatul fatiha téeméer julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax la ilaha illallah téeméer tëje ko ñaan gi nga xam ni fa tabaarakallahu moom la Seydina Limaamul Mahdi yu digal ñu مينيان ñaan gu matale googu inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأبي وأمي وزوجتي وولدي وزوريتي وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم نجنا مع الناجين ولا تحلقنا مع العالكين سفنسنا والملك الدائم إمام المرسلين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن جسنجا ذكر لو أم دولة لا برم من يوح إن الصلاة ngi عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر yàlla nee na julli daf lay tere def lu bon ak lu nu sib waaye nag wali zikrullahi tudd yàlla akbar moo gën a kawe moo gën a màgg waaw kon yow sa dund fépp sayna limamul Mahdi dugala la fa zikrullah kon amoo foofuy sàggane ba doo zikr kon fa tabarakallahu yal na nu yàlla fayal sang bu tedd boobu seydina imaamilaa il mahdi alayhi salaatu wassalaam kon gannaaw ba nu indee al zikr wa kayfiyatuhu wa anwaauhu ñi ngi ñëw nag ci al ustaaz ahmed ngir mu wax ñu adaabu zikr wa fadailuhu kon ustaaz ñi ngi ñaan Seydi Makhtar mu indil ñu zikr bu ko defee fa tabaarakallaahu nga daal dee tontu laaj boobu nga xam ni moom la nu la laaj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي تعالى بألو الجلال والجمال والكمال والصلاة والسلام على مزهر أنوار الجلال بالتجليات السماوية سر الخطاب والسماء مركز الفهوم والمعاني sayidil wujudi wa alami suhuudi sayidina wa mawlana muhammadu imaamullahi almahdi salallahu alayhi wa alihi wa sallam asalaamu aleykum sant yàlla sunu borom cant goo xamee ne day yelloog tolluwaayu jëmmam ji subhaanahu wa di julli ci yonentam bi seydina limaamu sallallahu alayhi di ñaan sunu borom yàlla yàlla yokk ay leeram yokk ngëneelam yokk darajam ak maxaamam ca boroomam àddina ak alaaxira julli googu yàlla ko yàlla wàccee ci njabootam gi ak ci saxaabam yëpp ak ci ahlulaay gépp ak bépp jullit ñu ngi nuyu nag di jiital ci nuyoo sunu xalifa Seydina Abdillah di ñaan sunu borom yàlla yàlla doole guddal ay fanam sunu borom ba wéral ko doole ko yàggal lool lool lool te wàcce nuyoo gi si njaboot gi ak saxaaba yëpp te di kontaan lool ci dalal gi ñu dalal ci waxtaan bi ak it ci rajo bi yaakaar naa ne ñu ngi koy bëgg a miin comme ni nga ko waxee woon sànq. waaye loolu lépp it ci seen baax dong la waaye wala kulli xaalin ñu ngi sant sunu borom te di kontaan tamit ci waxtaanee tomb bi nga xamee ne moo nu fi tax muy wàllu zikr muy tomb boo xamee ne moom mooy cosaan mooy cosaan mooy cosaanal diine moo si njëkk waaye moo ci mujj ndax kii nga xamee ne moom la gëm muy Seydina Limaamu Laay sallallahu alayhi ba ko sunu borom bindee ca azal mu nekk di ab leer te nekkagul di jëmm yàlla sunu borom jaarale naka ci fukki kiiraay ak ñaar fukki kiiraay ak ñaar yooyu kiiraay bu ci ne def na fa ay junniy junni at yoo xamee ne da daan sàbbal boromam di ko fa tudd ba demee ba kiiraay fukk yeeg ñaar yëpp mat yàlla daal di fay jëlewaat wàccee ko ci géej goo xamee ne fukki géej yoo xamee ne ay géeji leer mais géej yooyu yëpp ci zikkër la leen xuusee ba jàll leen kon moo tax ma ne zikkër mooy cosaan waaye tamit incha allahu rabbana bu ñu demee ba si kanam dinañu wanewaat li tax ñu ne zikkër tamit moom moo mujj ci mbir yépp te di wax ne diine ji nga xame ne moo di diine islaam fukki maxaama moo ci nekk diine fukki maxaama moo ci nekk yoo xamee ne sunu borom tudd na ko ci alquranul karim ca suratul ahzab sunu borom mu ngi naan bismillahi rahmaani rahim innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاسئين والخاسعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافزين فروجهم والحافزات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم maghfiratan wa ajran aziman kon fukki maxaama yooyu ñoom ñoo nekk ci diine moom mooy jullit yàlla nga koy lim ne jullit bu góor bi ak bu jigéen bi jullit nag buñ ko waxee moom mooy ki jox boppam yàlla kooku mooy jullit waaw muuminiina wal muuminaat muumin nag moom mooy ki nga xamee ne yamul ci joxe boppam waaye dafa gëm sunu borom nangul ko lépp loo xamee ne sas na ko ko kooku mooy muumin mu ne wal xaanitiina wal xaanitaat yàlla nee na nag ak ki nga xamee ne moom day jaamu yàlla ci góor a jigéen kon gisay ñaar yëpp fu yàlla tuddee góor ak tudd na jigéen kon ñetteelu maxaama bi maxaama bi mooy waxaanitina waxaanitaat ñeenteelu maxaama bi yàlla ne wa saadixiina wa saadixaat maa ngi tamit kañ ñi nga xamee ne woy dëggal lañu ci góor ñi ak ñi nga xam ne woy dëggal lañu ci jigéen ñi mu ne wasaabir wasaabiriina wasaabiraat yàlla nee na tamit maa ngi kañ ñi nga xamee ne woy muñ lañu ci góor ñi ak ñi nga xamee ne woy muñ lañu ci jigéen ñi walxaasi xaasi ina wal xaasi aat nee na maa ngi kañ ñi nga xamee ne it woy toroxlu lañ jëm ci seen borom ci góor ñi ak jigéen ñi wal mutasaddixiina wal mutasaddixaat yàlla nee na tamit maa ngi kañ saraxekat yi ci góor ak jigéen wa saa'imiina wa saa'imaat nee na maa ngi kañ ñi nga xamee ne woy woor lañu ci góor ña ak ci jigéen ñi mu ne wal xaafiziina furujuhum wal xaafizaat maa ngi kañ ñi nga xamee ne sàmm nañu seeni awra ci góor ñi ak jigéen ñi mu ne nag wa zakirina laha kasiran wa zakirat maa ngi kañ ñi nga xamee ne tuddkatu yàlla lañu lu bëree bëri bëri ci góor ñi ak ci jigéen ñi kon gis nga maxaama yi yàlla lim te muy maxaamaatul islaam yi nga xamee ne fukk lañ gis nga ba ca mujj féete ci kaw ëpp ci doole moom mooy maxaama zakirina laa kasira wa zaakiraati moom la suñu borom mujjee tudd mune ñooñu ñëpp nag aadallaahu lahum magfiratan wa ajran aziman yàlla nee na maa ngi leen di xaare li nga xamee ne moo di ab njëggal ak yool woo xamee ne yool wu rëy rëy rëy rëy yàlla sunu borom sunu borom subhanahu wa taala boole nu ci nga ñëw ci waxi yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne ala unabbi'ukum bi xayri ahmalikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلخوا عدوكم فتدربوا أعناقكم فتدربوا أعناقهم ويدربوا أعناقكم فقالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى def salaasim dafa ne dafa woo saaba yi dajale leen mu ne leen ndax duma leen wax li ngeen di jëfal yàlla yépp ban jëf moo ci gën waaye jëf yooyu tamit ban moo ci gën a sell ci kanamu sunu boroom ban jëfit moom mooy bi ëpp daraja ci lépp li ngeen di jëfal yàlla kaay leen ma wax leen jëf ji nga xamee ni moo gën ngeen di joxe ay wurus di joxe xaalis te di ko def ci yoonu yàlla kaay leen ma wax leen jëf ji nga xamee ne moo gën ngeen dajeek seen noon ci biir diini islaam maanaam ngeen dajeek noonu yàlla yi nga xamee gëmunu yàlla ngeen daje ci toolu xare neena bu ko defee ngeen di cor seeni baat ñoom ñoom ñuy cor seeni baat yéen way gëm yi te lépp nekk ci yoonu yàlla saabay ni ko ankay mu ne loolu nag moom mooy zikrullahi taala kon tudd yàlla moo gën a moo gën ci mbooleem li nga xamee ne jaam bi mu ngi koy def moom moo ci gën a sell yi ci kanamu sunu borom moo ci ëpp daraja te lu alal bëri bari bari lu koom-koom bëri bari bëri nit ki di ko def ci yoonu yàlla yàlla nee na ba tey sax ci di mu tudd moom a ko jihaad fi sabilillahi la muy rëy rëy rëy tamit yàlla nee na sax ci tudd yàlla moo ko ko gënal kon nga gis ne zikar lu am doole la te lu kawe la ci sunu borom yunef salaasim teg ci mu ne la zikrullahi fi l ghadaati wal asiyi afdalu min xatmi suyuufi fi sabilillahi wa min itaa il maali saxan yunef salaasim nee na sax ci tudd yàlla ci suba yi ak ngoon yi moo ëpp doole ci sunu boroom nee na nga boj ci sa jaasi soobu ci yoonu yàlla di ci xare waaye moo gënal sunu borom mi ba tey nee na yor alal gu jeex di ko def ci yoonu yàlla bo ba alal ji jeex kon nga gis ne lu yoolu jihaat li muy rëy rëy rëy rëy rëy yoolu tudd yàlla ak ëpp doole waaye yoolu joxe la muy rëy rëy tamit ba tey yoolu tudd yàlla moom moo ko ëpp doole mu ne ba tey mus nañoo laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ayul ibaada afdalu indallahi yowm alqiyaama xaala azzakiruuna laaha kasiran qultu ya rasulallah wa min al aazi fi sabilillah qaal law daraba bi sayfihi fi lkufaari wal musrikin xataa yan kasira wa yaxtadiba damman la kaana zakirina laaha afdala minhu daraja dañoo mës a laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk ana yan jaam ñooy jaam yi gën ca yàlla bu ëllëg